leen saa yi ay mbër dañ fiy toog ma laaj leen ko parce que dafa am promoteur yoo xamante ne dañu far carrément da gis ne kii mooy mbërëm kii mooy mbërëm loolu dina am. mënu ñàkk parce que nit ki nekk yow lan mooy sa position ci loolu. non non man aw ma problème boobu man nga ma fay suma xaalis. waaw mën nañu waxtaan ba déggoo bu boo boo leen bokkee ndey ak baay sax aw ma problème boobu. Hmm. waaw kon promoteur bi mun na faral mbër mi yow mi fay la ngeen ànd. i mun na faral promoteur bi mun na faral mbër mi mu dem ànd ak moom seen witi gàllaaj loolu intéressé om mhm. parce que lamb ku nekk da dem say mbokk quoi mhm. ba pare ëmba dama gis ni ay temps boo doon ñëw ah, da nga da nga doon daana woon takk téere yaa ko wax mhm. mais léegi da nga yokk option yi full la loolu xanaa sa idole moo la ko defoon wala parce que gis nañu moom tamit gis bu daan bëri moom tamit du indi dara biteelu kii rek biteelu kii rek la indi biteelu kii rek ndox rek xaw ma lan soo ah comme ma leen def loolu sa idole an si non loolu man maa njëkkee ci làmb. Hmm. waaw doon gis ni bu daan ñëw moom daan indi dara. non non loolu man maa ko njëkkee ci làmb. ale naan dafa coofe tii nangam nangam. non non sama combat ak commencé woon. Hmm. Hmm, sama combat ak Balla Gaye bu njëkk bi loolu mbër bu ko def ci man koy see. ma ko daan def aussi bëgguma mbër jàpp suma téere parce que naa ni mën naa bëre. pas naa la bëri dara xam naa ni mën naa aar bi. bëgguma tar tax dara loo may jàppee. te tam aussi deuxième fois bi dama ne xam nga loolu moo may moom mooy war a may ndam à 100 pour cent quoi. Mm. waaw du tax a dara la tamit def naa ko tamit aussi di daan naa huit ans neuf ans di dem kenn daanu ma. waaw waaye daan fi mbëri ëpp gën gën a gën ëpp gàllaaj tamit aussi. ba pare ci daan boobu sax ngay wax parce que gis nañu Gris Bordeaux Maman Sita mhm. ah, bi mu daanoo ñu bëgg na woon ñu Moussa Gningue la. <laughs> tafaatin na Omez yow nga ne Atta. Euh, euh, euh, keneen ka. te jamono boobu Balla Gaye na xaw ma kan ku daan rek joxañ. non man waxuma Atta. non non atta c'est que ñu mu may jox ay gàllankoor mosuma taxaw ci laamu la atta moo def lii. Mhm. non non mosul gars yi rumeur yi lañ doon dégg daal. non non non xaalis la woon quoi. Mhm. problème mu moo ni lañ jote woon quoi. mais mosuma daanu na diw nii wala diw la nangam quoi. Mhm. comme mhm. man sama question mooy que nga ci ay jamono yoo xam ne danga nekkoon ci ay jafe-jafe du dëgg ba mhm. gis naa sa benn ITV sa nga ci wax ba sa jabar di ci di ci jooy mhm. euh, gis ni que moment bi ga nekk ci ay jafe-jafe tey jeunes yi nga xamante dañu daan gis tout nga nekk ci wetam est-ce que revenir na la est-ce que gestu na la waaw man nag wax dëgg yàlla bëgguma dugg ci cadre boobu quoi voilà. lan moo tax ci sérieusement non bëgguma dugg ci leen man déjà lu ma nga xam ne tey moo nekk suma kanam déjà. li nekk ko am foo leen jaar mm-hmm. ñu xam leen ci ànd donc actuellement bëgg nañ également nga wax ñu ci moom seen relation waaw non xam nga du ma ci mën a sori quoi vraiment non parce que lu passé passé na du dëgg te tey tam aussi bugguma tout le temps di ci nekk dafay mel ni dama matt dara wala dama nekk benn rancune wala dara waaw mais soxlawuñ nga revenir ci mais actuellement say relation ak Tyson lan la non jàmm jàmm salaam waaw jàmm ngi déggante non déggante wuñu mais xam naa mu ma yéene jàmm man yéene naa ko jàmm mhm. waaw loolu toujours so waaw ah, mais dañuy génn réew mi ndax yow ak yaay jàmm amoon ngeen relation macha allah